bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nu fas yéene sant sëriñ Muntaxa ci taalif bi te tënk ko sa tabax bi doy na kéemaan Mbàkke sëriñ Muntaxa moo xam la nuy jëf ba am ngërëm te moo nu tobbel sas nu jëf ndax nu am ngërëm sëriñ Muntaxa moo xam la nuy jëf ba am ngërëm te moo nu tobbel sas nu jëf ndax nu am ngërëm tabax kër gu rëy gi ngir xasiiday sëriñ bi raw ci xaasam la nuy dibbal ñu feesal ni mag ña bu àggee ku jëf-jëf ji te jox-jëf ji kii nu gëm di as naa Mustafa kii du ñeeke mam xanaa nun de war nan ko berel cant gi ngërëm yuroy sax di bay toolam di jëf lii maye ngërëm bu dee wax lu jub lay wax bu dee jëf lu jub lay jëf te yéenee ma kuy jiital ba muy jëf lu kenn du jëf di woo tey liggéey yi jur njariñ tey jurit ngërëm digindee di dolli xam safoo kuy wuti ngërëm ya daagan lanu yéene ba tax muy joxe ndigal ku jëf jak sa mbir jub jak te doo seelu ay mbugal nu waayo xasaayin nun te jug jëf ci bii liggéey dabal yow ka raw tey wey te bul gët ci bii liggéey nu waayo xasaayin nun te jug jëf ci bii liggéey dabal yow ko raw tey wey debul gàcci bi liggéey këram gi la jox waayam liggéey loo ko yët waayam sëriñ aatumi waayam da koo jëf ba jox gaayam këram gi la jox waayam liggéey loo ko yët waayam sëriñ aatumi waayam da koo jëf ba jox gaayam yeneen bi sëriñ Tuubaa cofeel ak la gay la koy jox du am fu mu yem da koo ta pay gërëy ma wax fii karaamay gi am fili xasaa illa fonkal yow te jàngal baraw fili ilal muntaqa aw saldu xattan yasullu ma tuddi jafam kii nag lu baaxit yasullu nanuy xam nanuy roy gi nanuy gëm nanuy bëggit dëgër loo sëriñ Tuuba ko may ta muy dëggit basiirun ci ñooñ lislaam a ngiy bég di bégle tey danoo ñëw di sàkku yi may ci barkeb ki yàlla may ku gëm-gëm ni jëf réerul ko xam-xam ni lii neenul yàlla moo neewul kanuy fay du kuy jeexal